sëriñ bi am nañ bégte mu roy ci teew fi tayaat ci sa kanam ndax lépp loo mës a nekk boo geesoo nag ñu seen taloo sax mbaax rek boo ko waral moo tax tey Touba laa jógee ni jaaru bu fenn fii laa jawas directement moo tax sax may si te bu doon fu gën a sori fii tamit bon waaye dinaa dikk di am mbégte itam ci lii nga def ma la ci sargal ngir yu bari di la ci sargal di ci félicité ndax engagement bi nekkul loo xam ne danga koo jël noonu rek danga koo teg teg ko ci ndono teg ko ci li ñu alxuraan wax wala tan sa na si bakka biir dunya li nga xam ne moom la fi yonent sallallahu alayhi wasallam nekke woon ak ñi ko wutu ñëpp ak nag li nga xam ne noonu la yoonu murid daan doxee depuis 1902 ba fii nga xam ne benn élection amul ci réew mi te dafa ngi seen loxo di la sargal ci engagement bi ak choix bi nga xam ne def nga ko ci président Macky Sall mooy ki nga xam ne mooy candidat yi nga xam ne moo gën ci candidat yi nga xam ne ñoo ñëw 2019 te ñun ñëpp ñu war a defar kon yow boo jógee ne ma koy jàppale ñun jàpp nañ ne mbir mi sotti na ba pare kon li ci des rek moo di ànd ak organisation ànd ak méthode ak takku dugg ci terrain bi wax ak nit ñi ngir falaat ko ndax loolu mooy li ci réew di la sargal itam di la félicité yaa ma jur Mbakke di la félicité ci di la félicité ci aussi li nga xamante ne indi ko ko muy li nga indi ci wàllu mbay te loolu itam moo te bett may fàttali ci histoire ñi nga xam ne xañ na xamuñ ko woon ne am na am at moo xam ne sa maam di nekkoon doxal ndajeeru Cheikhoun Bamba mu ni maam Thierno Ibra Fati Sénégal gépp moo leen dundal Sénégal gépp laa bi fii lañ jàpp ñu dem Daaru Muxti bañ bojjee sàq ya ñu ci guerre ba ci lañ ci réew mi ci kon tey jii bu ñu taxawee daal ne dañuy suqali mbay bi ci réew bi def ci suñu loxo kon loolu suñu foraan bett kenn may fàttali ne ñi nga xam ne ñoo fi nekkaloon Serigne Touba tàmbalee ci Cheikh Mawlou Moustapha jaar ci Serigne Fallilou ku ci nekk am nga médaille de l'agriculture kon yoonu murit ak mbay dafa am histoire histoire boobee nag ak nañ ko daan defee muy tolaaro ba nga xam ne moom la Cheikh Mawlou Moustapha indi woon nga xam ne jumaa ji tey jii lu ci bari moo ko tabax tey jamono ji moo toll foo xam ne dafa am yeesal goo xam ne laaj na ko monsieur le ministre waxaan léegi transformation structurelle de l'économie kon ñu war ko indi ci anam goo xam ne yow mooy anam gu rafet bi nga ko indee andi ñu ci gën a xarañ ci Afrique ñu seet loolu nag naka lañ koy àndee ak le président Sall ngir Sénégal gépp jariñu si te maa ngi seetlu ne bi wax lépp danga naa ko bul yem ci Sénégal ne Afrique te loolu mooy Serigne Touba ndax Serigne Touba xéewal la goo xam ne la Cheikh Sidel Baba waxoon xéewal la gu suñu borom wàcc ngir mbindeef yëpp kon ci ñun la des ngir mbooleem mbindeef yi man see jariñu di ci point mujj bi ci ni nga ko àndee ak sa bokk yépp muy lu neex lu rafet dafa am sama benn wayjur ma wax sa Tuubaa ne ma bu la yàlla boolee ak ñi nga xam ne ñoo ñi gën da leen fonk téye leen te dafa am lu ñu Sëriñ tubaa defal ba tax soxlawuñ lenn fenn du jigéen dara kon bokk gënu bokk mu di askan wi loolu mooy li ñu dàq lépp te sëñ Mahmoud wax na ko nii nga leen dajalee yombut kon nag bu ñu dajaloo nii man la mu njëkk gis mooy barke bi nga xam ne mooy seen barke maam yi dana wàcc li nga xam ne mooy li ngay def te ñoom ñii ay kilifa la ndax ku ci nekk mokkal nga la nga a jàng jàng ko am nañ ñoo xam ne am nañ ay tool di bay ñi nekk ay opération économique ñii di tukki ñi def nekk maam Cheikh ma ma nga ne bëgg dem la dajal di mboolem diine Sénégal gépp kon foog naa ñooñu bu àndee ak ñoom li nga bëgg suñu borom daal la ko defal kon ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm di la dollee sargal di sant mboolem ñi fi nekk wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakatu